kilifa aada ci réew mu jiital gi ziyaar bi xalif général kullu murid Serigne Sidi Mokhtar Mbacke dellu di ñaan suñu borom may ko fan wu gudd loolu ànd ak wér oyofal leen bi tooy ci kawam ba lépp loo xam ne nam na ko liggéeyal maam moom Serigne Touba suñu borom may ko wér gi ak mën ngee kàttan gi mu àggalee ko sagoom te ànd ci ak moom di ko ñaanal mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima mu mel ni mbokki taalibe yi ni ñu ko àndee nag yéen boobu ba ak wér ci barkeb Serigne Mbacke Madina euh, ñu fekk fii euh, Serigne ibra Mbacke ñaamar waaye fekk fii itam euh, doomu Serigne Ibrahima Mbacke ñaamar di Serigne Abdoulahat Mbacke fa tabaaraka la macha allah Serigne bi mu dalal ñu waaye tatagal ñu. fa tabaaraka la ànd ak ñun ci liggéey bi xam ne liggéey rek moo ñu tax a jóg sëriñ bi toog fii ñu am ndigal nag ci bés bu tedd bi nga xam ne foo yéene nañ koo dund ak ñoom comme ni ko sëriñ bi santaane sëriñ Fallou jiite ñu ngi lay ziyaar di la wax ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi mina satan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bis bi day xanaa ñu jéem la cee wax rek lu tuuti ci baax ak ki nu fi dajal muy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye Serigne Touba nag ah ba mu wëlbati ko ànd ak murit yi ci liggéey ba noppi itam kenn ku ne daa am fu mu leen féetal sunu borom dogal nag ni ñun ah mu féetal ñoo wa ko serigne Modou Moustapha mi xamni moy premier khalifa serigne Modou Moustapha mom itam sun borom dogal na ah sunuy wajuro a àndandoo moom ah 27 ba 45 ba wacce wàcceeb itam sun serigne touba dogal ni ñu wëlbatiku and ak serigne Mbàkke Madina ci bërepp yu bari ndax serigne Mbàkke Madina day sunuy wajur ci bopam wax nañ ci lu bari ci lo xamni li manam num joxe woon sunu borom tabaaraka taala ab cër liggéey bu doon liggéeyal salaahu taala alayhi salaam ba ñëpp xamme ko ci moom Serigne Mbacke Madina sunu borom dogal ni ñu dël ko Madina mbooba bon ko dog dëlee Madina mbooba itam mu fay liggéeyal waajuroom mu tedd ma sëñ Modou Moustapha Mbacke di déglu nag ndigalal xalifaam bu muy sëñ Seex Mbacke Gaynde Fatma ci lu bari ba yàlla atti sunub sëriñ dina sunu yaakaar tey ëllëg muy seex naa seex Ibrahima Mbacke mi xam mooy waajuru tey ñii toog tey ñu tedd ñii te sunu borom dogal ni ah yàlla dogal na ni ñoom ñu xam lu bari ci ñoom ndax sëriñ Ibra Mbacke moom de yàlla dañu koo séddale sëriñ Ibra nag di seex Ibra Fall di sëriñ Touba ndax boo nee sëriñ Touba sëñ Modou Moustapha sëñ Mbacke Madina ni Serigne Ibra nga wëlbatiku ni Cheikh Ibrahima Fall ni soxna Adama Fall ni soxna Khady Sall ni Serigne Ibra Mbacke kon ñaari géej yi sëñ Ibra Mbacke génnu ci benn yoon suñu borom dogal ni itam fa sëñ Mbacke Madina tegoonub tànkam rek la tegab tànkam njabootam giit fa teg seen ab tànk mooy liggéey jaamu yàlla jàpp seen ak njàmbur te suñu borom dogal ni itam yàlla jox na ko ngor Aku fit woo xam ne tey bu sant woon Mbàkke sëtu woon ci Cheikh Ibra sax doy nanu ndax nag dañ koo gis ci dund ko ban ay ba léegi ñu nekk moom loolu nag bu amee bis bi ñëw mu wëlbatiku ñëw ñu toog fi ci ndigalal waajuram yi ñu di ko sunu borom Lol ñun dinañ ci seet lu nu man lu néew ko bari rek maanaam daanaka da ngay jël ab rek ko ci gi xamuñ ci ngi di wax ni sëriñ Ibra ko fonk bis bi la ci ndigal waajuram yi sun borom dogal na itam féete na ñaamar képp kuy ahlul mbàkki ku ko gis boo ko gisewul ñaamar bisub tey bi nga ko gis fii wala doo gis mu féete woo ñaamar nag waajuram wu tedd wa de doon wax na ñeme cër day tax nga amab ragalu ragalub cër tam day xañe wërsëg waaye sëriñ Ibra Mbàkke de sun borom dogal na ni sëñ Mbàkke Madina ko lay ñaamar ñaamar googee nag dafa am lu ci nekk loo xam ni ndax bu nee Touba ak Daaru nangam ak nangam ñu bari dina wax waaye ñaamar Serigne Touba ci bopp moo ko tudd wëlbatiku ba nga ko tuddee dafa yebal sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha jóge Ngaañax ànd ak sama maam mi xam ni mook ki jur sama ndey ñoo bokk ndey baay muy Balla Kumba Jeng mook sëñ Modou Moustapha ñoo ànd ba ñaamar ñu ñu ñu ci mag ñu tedd ñi itam ndax ki ma nangoo day ci kim nangoo sëñ Modou Moustapha ko wax ndax sama nijaay Cheikh Dieng de moo ma ni ma ne ko amu ah ne ma ñaamat gi de sëñ Modou Moustapha ba mu ko sancee ba ko rëddee nee woon du gent sëñ Mbacke Madina di fa ñëw ñaamat di fa ñëw ba benn bis mu tàggoog mu yëpp ni leen nag nu naa ko ñu ne ko ah Mbacke de doyaluñ ci yow bi nee ko doyaluñ ci yow mu ni mu ni mag ñi dinaa xaaj sama jëmm ñaar andi leen fi kenn kon nag Cheikh Cheikh Ibrahima Mbacke bu nee sëñ Mbacke Madina la ñun duñ ko mën a weddi te billaahi lépp loon lu ñuy xool ci sëriñ wala ku baax ak kum man di doon asakaay sëñ Ibrahima Mbacke rek lañ cey xool ci lool ndax nag dañu loolu moom li ñuy xamadi xamadi doon ay xale yu tuuti nekk ci moom itam xam nañ ci moom gëm yàlla gu ma sëkk jaamu yàlla gu ma sëkk ñeme weetaay gu ma sëkk te lii ma lay wax de mooy Serigne Ibrahima Mbacke de xam naa toog na lu mat fukki at yoo xam ne sànke bëccëg du ko génn billaahi bi mu sàncee ñaamar fukki at yoo xam ne sànke bëccëg du ko génn sànke toujours day wàcce sànke bi Serigne Ibrahima mës am lamp lamp nekk mësu ko am ba fii ma la koy wax waaw Serigne Ibrahima itam lépp lu mu lay wax ci siraatal mustaqima la lay teg seetu lu mu bëgg. seetul lu mu soxla seetul ku ko yëkkati seetul ku mu dal lépp lu mu mandil kii daal lépp lu ko yàlla yunteeg Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall maam jëw yëkkatiwul loola moom sëñ Ibra génn na ca loola njabootam gii noonu sëñ Abdoulaye mbakki mii leen fi kii nag day sama péete ndax li tax day sama péete mooy day lu bari soxna maam Faati Mbacke mu sëñ Abdou Khoudous mi ko meññ sëñ Ibra yàlla da ko nattoo mooy juróom-ñaari taalibe la amoon ca ñaamar ca laa bokkoon te kenn amu ci ndey kenn ci bàyyi maam Faati moo ñu yaroon muy waajuram moom mi yar nu ci nag ci lépp loo xam ne lii lu gone di bëgg wala lu gone di sagoo mu yar ñu ci muy guddi muy bëccëg ñaama dandaa toog ba soxna maam Faati dandaa toog ba trois heures trois heures laa la wax mu jóg yeeñ ñu dem ca siyaan yi di tappaatu ba sept ñu doog di am siwo moom tàngalale ko bi café mu lu ma dund la loolu xam naa ko kon loolu bu amee tey ngeen ànd ak seen blaat Mbàkke ñëw fii loolu moom am naa ci plein droit wax ci ndax nag dama ko xam yalla dogal ni mom mi mok seigne mustafa ak seigne Lamine kérok ban waré jang seigne Ibra dañ leena yaba sama biir kër fa lañ jagg ba bind alcorane kamil kenn ku nek bind na ñaari kamil mayit ko seigne Ibra ñu dog fay joggé kon nag ñii moom sawar naa wax ci ñom am nañ ñetti at mbur ñama jakkalu kër xamuñu leen te nek ci biir kër gi kon nak ñoñu seen wajur rek lañ doon ci lool sagal nañu jërëjëf waaw. jërëjëf euh, sëriñ Fallou Mbacke jiite kàddu yi am na solo ni ko àddoo ni ko àddoo waaye nag bala ñuy dem sëriñ bi waaw sëriñ bi soxlawul nañ ngir barkeeloo ko rek yaaram bi ngi tatagan bi nga xam ne tatagan nga ñu ko fii mu mel ni bu ñuy ñëw sax euh, ku ci mel ni Ousmane mi ngi wax bu ñu fekkee sëriñ bi de nekk na koo xam ne saa su ne day wormaal doomu aadama mu mel ni kon suñu yaakaar te su si yow benn yoon ndax bari na kër yooyu dugg tey pour nga jot ca kilifa ga rek def naa ne faaw nga am foo jaar waaye bi ñëwee ci yow def naa dama doon xool sax ndax wax dëgg yàlla euh, ni mu mel oyof gi nga xam ne oyof na ko ba def ba def naa ne boo laajtegu sax doo ko xàmmee ci biir kon sëriñ bi ñu ngi jéggulu bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal jaam di am mbégte ci oyofte gi nga xam ne ànd nga ko taalibe yi ñëw fii ci màggal gi. ñu di bisu Serigne Touba ndax ñun tamit amuñu du Serigne Touba euh, ni mu ko diglee tamit noonu lañ ko fas yéenee màggale ci bis bi comme ni ngeen ko gis rek taalibe yi nekk fii ñoom tamit ci liggéey bi ñi nekk ci waañ bi ñuy nekk ci mm, bernde yeeg ak jaamu yàlla bi noonu lañ ko fas yéenee defee ci wàccaayu màggal bu ñëwee suba la bisu màggal yi ak ginnaaw suba la màggal yëpp. comme niko borom magal bi digle sëñ Tuubaa tamit li wax ci bisam bi moy ka len sante dama yalla du bisub fo du bisub tiaxan du bisub puukaréew bisub sante yalla loolu nak ñepp war ko xamee non ku ci nek tamit côté ba nga mané rek ci walu sante yalla ndu jëm ko defee non di ñaan suñu borom dëppale ñoo ngeerum Serigne Touba ba lépp loo xam ne def nañ ko ci bis bi rek suñ borom nangul ñu ko ñu teewee ko at yu bari te yàgg ko def ni ko boroom bis bi sami màggal nag du dara lu du jàng alxuraan jàng xasaay te salaatu ala nabi ak berndeer gan yi noonu la ko sëñ bi bëgge woon loolu nag ci la ñuy nekk bu ñu nee du ne sax ñaari fan yu dañ dañu semaine bi yëpp sax ci la ñuy nekk comme ni ngeen ko gisee ci kër gi nii ñëpp nekk nii. noonu daal dañu fas yéene nekkee ci màggal gi di leen sant bu baax si seen gërëm ndax euh, li ci waroon wax sëñ Fallou mi wax na ko pare li ma wax ne maa ngi ko wax ci turu sëñ Cheikh mii sama mag sama kilifa ak sëñ me ñoom laa wax ci seen tur lépp lu ma fi wax ci seen kàddu laa ko waxee di leen sant di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla ñu teewe ko at yu bari te yàlla dafa leen xéewal bu baax ba yéen tamit seen yi ngeen yor yàlla dafa leen ci lu kawe seen jot fi ngeen ci bëgg ak yëpp yàlla defal leen ci lu ko di leen sant di leen jërëjëf euh, kon Mouhamed loolu mooy kàddu yi nga xam ne Serigne Fa Serigne Abdou Lahad Mbacke ibnu Serigne Ibra Mbacke Ñaamar yekkati na ko fii ci kër Serigne Mbacke Madina ñu am mbégte bu baax a baax a baax euh, ci ni nga xam ne ànd na ko ñun fa tabaarakallah ci cër bi nga xam ne cëral na ko képp koo xam ne yaa ngi dugg fii ci kër Serigne Mbacke Madina ba tax taaliba yëpp ñimee di ñëw fii ci wetam di ko ziyaare si ziyaare si waay juuram bi yal suñu borom may ko fan bu gudd lool bu ànd ak wéex bañ des ay at ànd koog moom ci barke Serigne Touba kon ñu ànd ak moom rek xanaa yokk ci biir kër gi jërë ngeen jëf